غفور قاد ما عني الزمان Festa Cheikh Anta ñoo ko fi ñëw baaxe si ko waa dëkk bi ci kilifteefu Sëriñ Xaadim Lo Gaydel moom mi nga xam te ne lu am baax daal la ko indi ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te am wér waa ñi nekk nag personnel cible yi mooy fédération jigéenu Baxdaadi waa ñoom moom ñu ci biir bu baax suñu njiit nag dafa empêché may wax ci kàddoom muy temps mi jaañ waaw consultation bi nag am nañ ay généraliste am nañ ay dentiste am na ay pédiatre am na ay ophtalmo am na lépp daal waa nit ñi daal ñu ngi ñëw sant bu baax ci bénéficier wu bu baax a baax a baax am na tamit octobre rose bi dépistage du cancer du col ak ay sensibilisation tam am na fi ñi ngi ñàkk tam xale yi ñi nga xam te dañoo am 9 ans ba 14 ans contre le cancer waa ñi ngi ciy woo ñëpp képp koo xam te ni jigéen nga nga dégg suñu kàddu rek mooy sa woote nga mën a ñëw daw ñëw am ci bis bi nga ñëw profitoo ci garab yi dañ maye ay garab dinañ def ay consultation te ñett tam xale yi ci cancer bi parce que cancer bi mi ngi def ay ravage man nag je parle en tant que délégué de quartier de Baxda ah, ñun de dañuy sant rek di gërëm di ñaanal suñu sëriñ bi nga xam ne mooy suñu wasila yàlla yàggal ko fi lool lool lool di gërëm it ñi nga xam ni ñu initiative bi ñoo ko am

wax dëgg yàlla yaatu na lool ndax ëmbul rek Baxdaad ëmb na na ëmb na Daaru Salaam ëmb na Silma ëmb na seen seen ñëpp ngi fi toog te wax dëgg yàlla fépp foo xam ne spécialité yëpp a ngi fi gynécologue ngi fi médecine générale dentiste ñëpp a ngi fi wax dëgg yàlla daal ñu ngi sant bu baax a baax a baax di gërëm au passage aussi docteur Sarr moom itam ñëw na taxawuñu jàppale ñu bokk ci di gërëm tout le corps euh, bi nga xam ni mooy le corps soignant les médecins sont là tout le monde est là wax deug yalla suñu xol set na lool ñi ngi leen di ñaanal ci barke borom Touba barke borom dam du ngeen mën ren ngeen ñu ko initier ngeen mën ko deewel ci barké Serigne Touba. wa di su gëreem nit ko xamni mom duñ ko gëreem dañ koy ñaanal muy sunu jigen di yaayu daara yi man je di fa yaayu daara ji way yaayu daara yi la muy soxna Rama wax deug yalla ñew na lepp lo xamni ne baxlaat soxla nako soxna Rama mo fay ñeek mo fay mujj kon ñu koy ñaanal ci barké Serigne mom tam yalla yalla yagal taxawayam dëgëral ko ba lim bëgg ci Baxdaad yàlla suturaat ba mu àggale ko ci jàmm. di ziar ñëpp di ñaanal Serigne Khadim Lo Gaydel borom ndaam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. dañoo ñëwoon fii Baxdaad doon fi amal benn journée de consultation gratuite avec don de médicaments euh, ci journée samedi tey 28 octobre 2023 journée bi nag ñu ngi ko parrainé woon Serigne Khadim Lo Gaydel borom ndaam euh, xanaa dikk ak yéen rek ci li nga xam ne nii mooy lim bi nga xam ne consulté nañ ko fi tey. ci ay nit ñu jéem leen a defal tuuti résumé rek ci liñ fi am ak xeetu feebar yi nga xam ne am nañ ko fi ak euh, yi nga xam ne nii ci ay garab aussi joxe nañ ko fi euh, lim bi nag mu ngi toll ci bu ñu defee lépp lépp mu ngi toll ci mille quatre-vingt-onze patients xam naa ne xëy na buñ ma dimbali woon tuuti ci wolof bi <laughs> ci niñ koy wàññee ci wolof doon na gën ñàkk. waa junni ak juróom-ñeent fukk euh, ak benn waa junni ak juróom-ñeent fukk ak benn waaw loolu lañ ci am ci ay patient boo xoo séparé ci góor ñi ak jigéen ñi jigéen ñi ñu ngi nekk 771 góor ñi nekk 320 loolu lañ fi consulté tey ci journée tey bi ci diggante fukki waxtu ci suba ba fukki waxtu ak ñeent ci ci ci ngoon gi fukki waxtu ak juróom-ñaar 17h ci ci ci ngoon gi euh, niñ ko répartiré nak ci service yi nga xam mom lañ fi euh pédiatrie bi nga xam fa lañ doon xolé ndaw ñi ñu ngi fa am 257 patients mom lañ fa consulter ñu répartir ko ci 156 pour jigen ñi 101 pour ñi nga xam moy mooy ñi bokku na ci fièvre yi gënon bari nak ci xalé yi euh, ay. pneumopathie gastéro-entérite parasitose yi surtout warwaraan yeeg yooyu noonu bari woon na ci trop amoon na aussi ay cas yoo xam ne c'était di ay dermatose la yoo xam ne ni bari woon na ci ci ci ci ci xale yi yooyu daal bokkoon bokk na ci feebar yi nga xam ne ñoom lañ gën a gis tey ci consultation bi donte am na yeneen mais yooyu noonu la ñu la ñu gën a gis ci li nga xam ne moom moo jëm ci ci ndaw ñi boo demee ci wàll bi bi ñu loon médecine générale nga xam ne ëmboon na xeetu feebar yu bari yoo xam ne daje woon nañ fa euh, foofu ñu ngi fa am 363 patients ñu ngi ko séparé 253 pour jigéen ñi 110 pour góor ñi euh, foofu it amoon nañ fa ay cas yi nga xam ne ay parasitose la tamit euh, ñi amee feebaru tension bi tamit bari woon nañ ci ñi ci ëppoon tamit ci ñooñu ñoo xam ne nii dañuy xam ne am nañ feebar bi waaye dañuy arrêté seen traitement ñooñu bari woon nañ ci lool tey amoon nañ ci kaa yu bari euh, bari woon na aussi grippe bi bari woon na lool ci ci ci ci service su médecine générale bi euh, amoon na aussi ay kaawu quelques kaawu jabet yoo xam ne amoon nañ ko ci ci fii nii def nañ ci aussi la nga xam ne nii moom lañ ca moom lañ ca war a def donc yooyu mu nekk feebar yi gën a yi gën a ràññeeku ci. ci médecine général bi tey donte nag am na yeneen comme ni ma ko waxee mais toujours dañ leen di jox yi nga xam ne rek moom moo gënoon moom moo gënoon fréquent tey ci journée bi. Euh, boo demee ci gériatrie nga xam ne moom lañ jagleeloon troisième âge bi foofu consulté nañ fa 247 patients euh, am nañ fa 157 yoo xam ne ay jigéen lañ ak 90 yoo xam ne ay góor lañ foofu nag euh, arthrose bi bari woon na fa HTA bi aussi ñëwaat na fa. am nañ fa ay kaawu dermatose parasitose ak vertige bi aussi bari woon na fa lool yooyu ñoom ñoo fa ñoom ñoo fa gënoon euh, bari ci ci service boobu noonu boo demee ci service bi nga xam ne mooy gynéco ñu jagleeloon ko jigéen ñi uniquement foofu euh, ci consultation simple bi kese am nañ fa 32 patients yoo xam ne ci consultation bi simple bi la woon am nañ aussi 67 yoo xam ne nii defal nañ leen dépistage du cancer du sein ak col boo ko boolee euh, am nañ ci ci yooyu noonu ci 67 yooyu am na ci sept yoo xam ne nii dañ leen a suspecté ne am nañ feebar bi waaye amaguñ ci firnde yu wér ni am nañ ko dañ leen suspecté rek suivi bi incha allahu rabbi euh, sunu mbokku sage-femme yi nekk fii ci district kiiwu sal euh, poste de santé Silema bi ñoom dinañ ko def. Euh, amoon am nañ fa benn kaaw boo xam ne dafa am fistule li ñuy wax fistule rectovaginal am nañ ci benn am nañ ci ñett yoo xam ne dañoo am polype am nañ nag benn bo benn cas boo xam ne moom moom si diagnostiqué nañ ko cancer du sein am nañ ko fii nii tey mais benn benn la ci ci ci 67 yooyu noonu à part loolu yeneen feebar yi fi yi fi gënoon ràññeeku ci ci jigéen ñi bokk na ci li ñuy wax ay candidose vaginale euh, dysménorrhée yi ma mastodini euh, les syndromes anémiques ak RGO yi yooyu bari na bari na bari na lool tey ci ci ci jigéen ñi boo demee ci beneen service bi nga xam ne mooy ophtalmo fañ doon xoolee bët foofu am nañ fa cent vingt cinq patients cent six jigéen ak dix yoo xam ne ay góor lañ euh, feebar yañ fa gën a ràññee nag bokk na ci sécheresse oculaire yi cataracte amétropie l bi ak glokom yooyu noonu bokk na ci feebar yi nga xam ne moom la ñu gën a ràññee ci service boobu li moo nekkoon service yi nga xam ne nii daje woon nañ fi tey doon amal consultation bi donc lépp lépp buñ ko tënkee ci comme ni ma ko waxee sànq 1091 patients lay toll. donte sunu mbébét moo nekkoon ñu jël ñëpp waaye am na ci ñoo xam ne ñu di leen massawu di leen aussi jéggalu ci ñàkk jël bi leen ñàkk jël ndax rang bi metti woon na. xaar bi aussi yàggoon na waaye temps bee ñu tënkoon médecins yi sonoon lool tamit ba tax na yoon yamul ci benn xëy na bu ñu dellu si waatee danañ jéem a renforcer dispositif yi ba nga xam ne képp ku fi ñëw incha allah rek danañ jéem a matale lépp ci li nga xam ne ni moom moo jëm ci ci faj mi. Euh, bii mooy première édition bu ñuy def fii promotion bi promotion sortante dafay amal ay journée yu mel nii di ko amal un peu partout au Sénégal tey nag fii lañ ñëwoon. mais Baghdad fi moy première édition bo xamné ñu ngi fiy def euh, consultation journée de consultation bu melni man personnellement damay ñëw ci zone bi yag di fi ñëw di fi def ay journée yu melni consultation surtout ci couverture ay gamok yoy gis né lu askan bi soxla la demande bi forte na et tout ba tax na mu proposer ko promotion sortante bi ba tay ñom ñu nangul lolu ñëw fi ni pour amal fi journée bi. donc par rapport ak demande bi nga xam ne nii askan bi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def ci niñ doon wuyusee ci couverture yeeg yooyu ñu gis ne kat ñii nii sox yittewoo nañ à que ñu mobiliser benn personnel médical bu am solo ñëw fa pour gën a élargir li nga xam ne nii moom mooy paj mi pour permettre ak ñi nga xam ne gàmmu gi kese doonul woon doy pour ñu xool leen ñu am possibilité ñëw xool seen yaram te duñu fay dara. bu ñu nee Baxdaad rek xel yëpp ci moom lay dem. Hmm. donc lépp loo xam ne nii dañ ko fiy def ah, ñu jàpp ne rek buñ ko ko buñ ko ko parrainewul ah wax dëgg man xaw ma kuñ koy parrainé waaw moo tax proposition bi ñu bañ ko jotee def ko aussi ci li nga xam ne moom mooy promotion bi ñëpp nangu ko à l'unanimité que ne lu war la idée bu rafet la ñoom ñëpp ñu rafetlu ko d'accord ci ànd teeg ñun ñu jël journée bi tuddee ko Serigne Khadim Lo Gaydel mi nga xam ne mën naa ne mooy borom Baxdaad ñu tuddee ko bés bi nga xam ne ci go goxam lañ koy def donc pour man loolu loolu rek lañ mënoon lañ mënoon def pour journée bii nii. ambition pour waaw euh, sunu ambition nag bu dee promotion sortante bi mooy fexe ba lii ñuy amal nii ñu fexe ba amal ko fépp foo xam ne nii rek askanu Sénégal soxla na ko soxla nañu wuyu si ko fa pour defal ko ko incha allahu rabbi ñun suñu bëgg-bëgg mooy fexe ba mobiliser lépp lu ñu am. ba yegg foofu noonu defal leen ko fii nag ci Baxdaad a am nañ yéene ci at yii di ñëw buñ ko mënee pérenniser chaque année ñu di ko fi amal tamit lu gën la ñu di ko fi amal at at bu nekk di ko jagleel askanu Baxdaad ndax ñuy mën di saytu seen yaram donte benn yoon la sax ci at bi ñu mën di ko am saa su ne waaw waaye Baxdaad ak feneen sax ci Sénégal ndax lu ñu soxla la ci réew mi lu ñu soxla loolu la ci réew mi buñ ko mënee amal fépp mooy li gën. waaye Baxdaad bi moom ñor nañu lool pour ñu dellu siwaat fi incha allah. waaw sama message nag am naa ne day jëm ci rek ay sant ak gërëm ndax askanu Baxdaad ñi ñu fi fekk ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax woote nañ ñu wuyu si ñu ñi nga xam ne ñoo bokk ci kër sëñ bi taxawuñu ci lool li jëm ci organisation bi yëpp ci dispositif beeg lépp ba ñëwee dañoo fekk lépp taxaw. lépp pare pour que ñu utiliser ko donc ñu di leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax euh, di sama yaay jii nag nekk sama wet moom xam naa ne dama koy beral cant ndax moom moom depuis ci départ bi bi ñuy mbébét pour ñëw def si fii nii campagne médicale bi mu ko yëgee boobu ba léegi mosu cee des ginnaaw gunge nañu ci xelal nañu jox nañu ay yoon yoo xam ne nii buñ fa jaaree mu sorti jaar nañ fa te tey ji sotti na te gis nañ li ñu ci am ba tax ñukay sante diko gëreem di wax képp ku ne fi mu di ñuko ñaanalal bu baax yalla dooli ko wér dooli ko kàttan ndax li lañ ko xamé ci li lañ ko xamé muy dox ci social ba tay ji mu nekk sunu yaay kon dañ koy ñaanal rek yalla gën ko katanal gën ko dolel ba li nga xamni ni mom la sumbu nekk ci mu gën ci ne ndax lu askan bi soxla la lu askan bi di ñaan yalla la donc lool lañ koy ñaanal di ñaanal askanu baghdad yépp yàlla taxawu leen dolli leen wér dolli leen sutura it indi jàmm bu wér ci ci ci ci askanu Baxdaad. waaw da dafa mel ni jot nañu feuille bi nga xam ne moom moo euh, tukkee ci service su dentiste yi foofu consulté nañ fa cinquante huit patients yoo xam ne dañuy ñëw sax dolleeku ci lim bi nga xam ne nii waxoon naa ko sànq yi nga xam ne mooy mille quatre vingt onze yi ndax sànq seen feuille bi jotuñu ko woon donc euh, ba ñuy compté boolewuñ ko ci woon. Euh, yi nga xam ne feebar yi nga xam ne moom lañ fa géey carie dentaire bi gis nañ ne bari na fa lool am na yoo xam ne nii euh, war nañ leen defal ay extraction am na ci ñoo xam ne am nañ ay absence de dents ba nga xam ne war nañ leen defal aussi ay protege loolu moom la ñu gis tey foofu ci consultation dentaire bi waaw xanaa di tëjee rek kàddu gi balaa ñu ko jox imaam rek ñu may ñu ñu sant ñi nga xam ne euh, mënuñu leen a ñàkk bañ a sant bokk na ci équipe SOS SOS médecin Euh, sunu parrain déjà moom ko muy docteur Massamba Sassoum euh, Diop di doom ci Cheikh ante Diop moom ko doon fondateur SOS envoyé fi ambulance boobu ngeen di gis ci ginnaaw fa lañ doon defee tey lépp luy paraclinique bilan yeeg ECG yeeg yooyu yëpp fa lañ ko doon defee euh, mu yabal ñee aussi ànd ceeg ñun tey yoroon tey li nekkoon fii ci digg bi nga xam ne fa lañ doon defee daanaka tri bi waaw ñooñu di leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal aussi euh, yàlla defal leen tawféex bu baax euh, di sant di gërëm sunu homonyme ki nga xam ne moom la ñu tuddee promo bi di professeur moor Ndiaye euh, di sant tamit di gërëm sunu marraine maama si mooy ñett ñoo xam ne bàyyiwuñ ñu génn yoon ñu des ginnaaw lépp loo xam ne ñu ngi koy sumb bi ñu amee prom bi ñu taxawalee promo bi ba léegi ñu ngi ñu ci accompagner di ñu ci gunge di ñu ci xelal ba lepp luñu sumbu ñu mën ko réussir ba tax ñu ñu leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal aussi bu baax euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy équipe bi fi ñëwoon tey di prosmédiens yi di sunuy fiyal euh, ak pharmaciens yi nga xam ne nii ànd nañ seeg ñun képp koo xam ne nii day teewoon nga fi rek ci équipe médicale bi ndax ku lim juum euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm on vous remercie du fond du cœur pour ce travail exceptionnel abattu malgré la chaleur vous avez su tenir et procurer les meilleurs soins à la population de Bagdad. Franchement, on vous remercie du fond du cœur pour cette tête. On vous remercie du fond du cœur pour ce déplacement et pour ce sacrifice. Vraiment, merci encore une fois. di am mbégte ñëwaat tey teew tamit jàkkaarloog askan wi fii pour wax ci euh, mbir mu am solo mi nga xam ni tey am na fi tey muy consultation médicale gratuite yi nga xam ni waa promotion Sontar Promet bi nga xam docteur Babacar ñoom moo ko ak ñi mu àndal fii médecin yi mu àndal ak ay spécialistes yi mu àndal ak interne yi mu àndal fii ñëw jagle ko ki nga xam ni mooy sëñ Xaadim Lo Gaydel comme ni mu ko waxee rek borom Baxdaat loolu tamit dama koy rafetlu bu baax ah, di ñaanal yàlla aussi sëñ bi mu yàgg fi loolu te wér ah, di ah, di sant ñi nga xam ni tey ñoom ñoo fi ñëwoon tey bokk ci organisation bi ci tàmbalee ci jëwriñ nga njuga nga xam ni depuis sa matin ba léegi mi ngi ci mbir mi ak ñim ko seqal ñëpp fi wa Bagdad ñi nga xamni ñi ngi japp ci organisation bi depuis le matin pour réussite bi nga xamni muy pour réussite journée journée consultation gratu euh, gratuite bi. di wax ni consultation bi ça vient à son heure dafa am solo parce que bu ngeen xolé légui docteur wax nako domaine yi nga xamni tay tey laal nañ ko muy domaine pédiatrie mi nga xamni xalé la. té ni ko waxé fièvre yi ci gëna fess moy lay les bronchopneumopathie moy fièvre soj yi dënn bi ñi nga xamni période yi vraiment mom moy mom moy sonal xalé yi ndax problème asthme la des affections respiratoires loolu tamit diagnostic biñ ci def tamit baax na fii euh, baax na ça vient à son heure bu ngeen xoolee tamit feebaru mag ñi gériatrie domaine boobu gériatrie yi nga xam ne moom mooy touché feebaru mag ñi gis ngeen feebar yi nga xam ne desele nañ ko maanaam lu ci bëri hypertension artérielle la te loolu dafa am euh, dafa am solo ñu dépister ko mm-hmm. bu ngeen xoolee sur le plan de la gynécologie tamit li ma gën a amal solo mooy li nga xam ne dañ ko def tey muy dépistage cancer du col ak cancer du sein boo xoolee tey Sénégal boo xoolee Sénégal taux yi cancer du boo xoolee tey euh, d'après d'après statistiques yi at bu nekk junni at bu nekk cancer du sein at bu nekk junni ak juróomi téeméeru cas yu bees ñoom ñooy am cancer du sein fii ci Sénégal at bu ne bu dee cancer du col de l'utérus boo xoolee at bu nekk dina am junni cas yi nga xam ni cas yu bees la. donc feebar la boo xam ni vraiment nit ñi war nañ ci war nañ ci gën a taxaw moo tax euh, la boo ni ne nit ñi war nañ ci gën taxaw mais taxaw bi yëpp cancer mon li ci gagne am solo moom mooy ñu insister sur la prévention quoi comme ni ko docteur waxee ñuy prévenir nit ñi pour les pour les cancers du col euh, col de l'utérus à cancer du sein. li nga xam ni tamit mon moyen ophtalmologie bi tamit gis ngeen lim ci wax feebar yi nga xam mon moyen am mooy cataracte. ay glaucome et cetera yooyu ay fièvre la yo xamni dafa am solo ñu tel ko dépister pour mën ko fajj surtout surtout glaucome. en un temps li ñu mëna wax rek mom moy kan ni dépistage bi ñu def tay fi ci Bagdad ça vient à son nom daf ko laajoon parce que Bagdad gis ngeen tay mbolo mi fi nek tay non seulement Bagdad ak ñepp ñi nga xam ñoo wor Bagdad mais encore sante encore wa Promet initiative bobu ak euh, ak euh, Rama fay mi nga xamni mom moy yaayu daara ji di sante wa Bagdad yep ci lolu quoi donc man en ce qui me concerne. ah initiative bi waxoon naa ko tey ci suba dama bëgg ñu pérenniser ko fii Baxtaat at bu ne ñu gën ko yokk gën a yokk consultation gën ko teel a def mën nañ dem sax ba koy def ñaari fan pour que waxuma la waa Baxdaat sax mais lépp li nga xam ni moo wër Baxdaat ak yeneen quartier yi ñu bénéficier wu ci lii ba pare ñu yokk encore docteur spécialité yi tamit bu ñu ko mënee yokk tamit mu gën a dentaire bi tamit ñu ñu fexe ba prochainement ñu am chaise dentaire pour que namit ñu mën ñu mën a xool xoolal nit ñi seeni seeni seen i bëñ en tout cas man docteur Sarr mi nga xam fii sama kër la sama kër la fii baax daat parce que dama fee bokk lépp loo xam ne dañ ko fiy def moi je maa ngi ci biir maa ngi ci biir di xaar lépp loo xam ne war nañ ko fay def rek ñu boole ma ci biir pour que manit ma indi ci sama participation ci walu xam-xam ci walu garab ci walu ci walu ci walu wàllu kay dal lolou tamit je suis prêt à faire ça di sante vraiment ñima fi nekkal ñima andal tay ak euh, di euh, nuyu tamit Serigne Dame saxo mi ñew léegi léegi ak imam tamit ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar ak wa baghdad ñi fekk yépp di am mbégte vraiment di nuyu ñëpp vraiment di remercier médecins yi nga xamni tamit ñom ñoo ñëwoon tay ci consultation yi ak euh, ñi nga xamni ñom ñofi néwon sage femme yeeg yooyu ak personnel médical bi ak ñëpp ñi nga xamni vraiment contribuer nañu pour la réussite de euh, la journée di nuyu aussi askanu waa Bagdad tamit ñu leen di nuyu bu baax parce que gis nañ tay sen téway gis nañu ñëw ngeen en masse ba pare rafetal ngeen bëss bi daal. ko ci ñi nga xamné sa bo gesso ci wetu sëriñ bi gis leen. muy mbollem seen jëwrin yi ñu tambalé ko rek ci imam buñ ko nuyu rek day melni jall na ci mbollem jëwrin ak kilifa yi nga xamné it ci walu wu ci nek rek téwé nañu fi ba ci docteur sar mi nga xamné bayina légui ñu ngi jox ñëpp seen way dama bëggoon bala ma sori ci kaddu yi ñu tàccul ñu médecin yi bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax te bëggoon na it jéggalu ngir am bata boo hamne ne daf ci am ñu nekk ci ñom ño xamné ne né naa né dégg nañu wolof wayé ñu waxon ko ci tubab dana gën am ci ñom ak jappandal mu nekk nak ay kàddu tiant remerciement la yo xamné rek sëriñ bi waxon na né nañu ko indi jëmale ci ñom chers membres de la promotion sortante de médecine 2023 Prosmed 2023 en cette journée spéciale nous tenons à vous adresser nos plus sincères remerciements pour la campagne médicale exceptionnelle qui s'est déroulée aujourd'hui à Bagdad, ce samedi 28 octobre 2023. Votre choix de la cité religieuse de Bagdad qui abrite une quinzaine de Dara, ainsi qu'une population incroyablement diversifiée, en plus de nombreux groupements de femmes et associations de jeunes, a été d'une grande importance. La Prosmet 2023 promotion de la prestige, a apporté une contribution inestimable à l'effort continu de soutien et d'assistance aux populations sous la bienveillance de son Excellence Serigne Khadim Lo Gaïdel Boromdam, le parrain de cette journée et guide de la cité religieuse. Nous saluons votre passion pour le service, une passion que vous partagez avec le maître des lieux qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des populations riveraines. Il est remarquable de noter que Serigne Khadim Lo Gaïdel a été à l'origine de la création de la cité et lui a donné le nom de Bagdad en hommage à son illustre père et guide Serigne Abdou Khadr Mbake, le quatrième calife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Il a également contribué à la communauté en faisant construire un forage moderne pour faciliter l'accès à l'eau, en permettant l'extension du réseau électrique et bien d'autres initiatives en faveur de la population. À Bagdad, c'est la pédagogie par l'exemplarité qui prévaut et cela se reflète par la cohésion sociale qui y règne. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers tous ceux qui vous ont soutenu tout au long de votre cursus académique, ainsi qu'envers tous les acteurs qui ont participé à la réussite de cette campagne médicale, du corps médical aux partenaires et donateurs, en passant par le comité d'organisation et les élus locaux. Les patients qui ont bénéficié de vos soins méritent également une reconnaissance particulière. Un grand, un énorme merci revient également à Serigne Khadim Lo Gaydel Boromdam pour son hospitalité et sa teranga. Vous avez tous contribué à faire de cette campagne médicale un événement mémorable qui a touché les cœurs et soulagé tant de peines. Votre engagement envers le bien-être de la communauté et votre action dans le domaine médical sont exemplaires et nous espérons que cette tradition de service et d'entraide perdurera. Encore une fois, merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez accompli avec toute notre gratitude. Je vous remercie. Bon, ci dolé euh, yo xamné dañ ci dolli 58 yo xamné ci côté consultation bëñ yi la. Ah dañ ko jotul won nak sank bi ñuy def total bi après lañ ko jot day dolé ku ci limbi ni. wa ah, amna ci 771 yoo xam ne ay jigéen lañ am ci it 320 yoo xam ne yi ay góor lañ waaw niñ ko tasee nag am na ay ndaw xale yi ñu ngi toll ci 257 mag ñi eh, ak yenn tranche d'âge yi nga xam ne dañoo nekk ci digg bi nekkoon ci médecine général bi ñoom ñu ngi tollu ci 363 eh, li jëm ci troisième age bi mooy mag ñi eh, nekk nañ 247 patients li nga xam ne moo jëm ci jigéen ñi euh, am na ci 32 euh, yoo xam ne consultation simple lañ ñëw def ci gynéco bi am ci 67 yoo xam ne dañoo doon def dépistage ci li nga xam ne mooy cancer du sein ak cole de l'utérus ci ñooñu nag am na ci ay cas yoo xam ne dañ leen a suspecté rek waaye defaguñ diagnostic bi ay suivi ba ca war bàyyee nañ ko waa poste de santé Silma ñoom danañ ca def la ca war Euh, am nañ nag benn cas boo xam ne dafa confirmé wu ci cancer du sein. Euh, leneen li nga xam ne nag moo ci desoon mooy araak amétropie L7 ak glaucome yooyu juróom yooyu ñoom ñoo fa gënoon euh, ràññeeku. ñoo fa gënoon bari gastroentérite yi parasitose yi mooy saan yeeg yooyu ci consultation bi donc ci de manière résumée rek ci ñun. waaw di amal journée bii nii ci sa tur. borom ndam moom mooy parrain wu journée bi. lool mom ñu ci sante di ci gërëm bu baax. sëriñ bi nee mi ngi nuyu mbokk talibé yépp sëriñ bi nee mi ngi wax alaykum wa rahmatullah neena mi ngi nuyu ñi fi daje ñëpp ak bis bi nga xamni mo leen fi dajalé muy bisum ndimbal di bis bo xamni bisu sante yalla la ndax bis bi bisu faj la bisu toyetas la sëriñ mi nee na mi ngi leen di sant bu baax nag ci darajaal gi ngeen ko darajaale bis bi ak cër bi ngeen ko jox ci bis bi mu dëppoog nag luy dimbali doomu aadama cër bu nekk mën naa am ci moom nag waaye nee na bii moom mooy bi ko dàqal ndax bii cër njariñal doomu aadama yi la ngir nit ñi mën faju mën a toppatoo seen bopp sëriñ bi nee na dégg na it lim biñ fi wax. ndax buñ dee wax lim boo xam ne junni la ak lu topp. daanaka junni ak ñaar téeméer. ci ay doomu aadama. loolu ndimbal la. ci jamono boo xam ne. jafe-jafe am na. métit am na. nit ñi ci ñu bari. dëppoo nañu ak néew doole. ba seen wàllug faj. dañuy woyale rek waye lu melni mom bu amé rek nek ndumbal ba bën ba man dimbalé dimbale ñëpp nee na loolu rek moo ko man nee na am ci ño xamné it dañu am kersa ngir woyale ñen yi di woyale lo di dañ koy ragal ne dañ koy sax ragal génné waaye kon bu leen yàlla defee yéen it ngeen mën a taawonte ak nit ñi ba man leen a ko mën a naxante ak ñoom ba faj leen yéen yàlla rek moo yor seenu bay kon loolu moom sëriñ bi naa téere boo dem fekk ko fa téere yi nga xam ne ñoo jiitu lislaam wax nañ ci ba bàyyi ba bi lislaam dikkee lislaam it farataal faj ba yàlla dem sax di wax ci àgg ci wax di wax ci téere bi ni téere bi sax day faj muy alquran baag sax ci yonent bi ne yabal na ko moom yonent bi mu ñëw waaye moom mooy faj jàngoro yu dënd yi jàngoro yi dëng ak ak mooy jàngoro yi dënd dënd jangoro yi dënd nak buñ koy tuddu moy coxorte ak yu démé noni sayyidina Muhammad mom da ñëwoon di safara lolu kon l'islam leppam safara la sëñ bi néna na ñi mu ngi leen di sant bu baax ci taxaway bi ngeen am ak promotion bi ngeen nek té nak mu rañé leen bu baax ndax fu mu nekk fu ne yàgg ngeen ko faa fekk ñu ci bari bi nuy jàng médecine ba ni seen jàng sottee ñu ne ci réew mi ak ñi fi nekkul ak ñi nga xam ne it ñu ngi ci biir yëf yi it waaye yittee paj mi di seen yittee doonte sax danoo jàpp ni sax diine yi bokkul. waaye ñoo bokk bëgg-bëgg ndax yàlla kenn la ne day am ku koy wax ne ko ànd dafa koppi tawreet bi ma ne ko waaw mu ne dafa mel ni it li ñuy wax ci mbind mi ni dawlatul abbasiya dañ koo bind mané ko sëriñ bi néna mané ko waaw bu fekkoon ne yàlla day yonent bu ñëw da ngay am sa yàllay bopp ak sa yàllay askan wax ji mën naa doon wuute ka doon wax ci tawrat ba ak wax ak ki wax ci injil bi soppikuwul ñoo bokk li ñuy aaye ñoo bokk it ak bëgg ndax moom jógu fi moom suñu borom moom kenn rek la kon wuute amu fi sëriñ bi nee kon nag yéen it mu ngi leen ci sant bu baax ndax ci biir mbooloo mi lépp mu ngi ci biir waaye yittewoo paj ndax boo jëlee yonent yàlla Isaa moom mbiram faj la woon moom paj la ñëwee woon gis nañu lim ci def ba doxloo faj gumba waxloo nit jox nit it courage ndax boo àggee ci nit ci kàttanu yàlla jógal ci ndigalul yàlla te dox ngir yàlla nit ki def ko kooku taxawal yàlla la Sëriñ Tuubaa dañuy wax nenu karaamay wàllu yëpp mooy dëggal amuk yàlla gi waaye wàllu yi ñoom defuñu lenn lu ñuy feeñale seen bopp waaye dëggal amuk yàlla gi loolu yàlla tëye na ko rek ab jaama mën na ko kon yàlla moom du nit dëgg la na yàlla moom du nit. maa ngi sant bi. sëriñ bi na yéen ñi nekk ci promotion bi yëpp mu ngi leen di sant bu baax. di amit yaakaar ci yéen. ndax am paj moom. ndax am paj moom. li ko li ci ragalloo moom. mooy lim ci gis muy xew. di lim ay oto. ak i kër. di xool matériel bi. ak wërsëgu àdduna wi. waaye booy itoo doomu aadama yi te bañ a itoo wërsëg wi yàlla lay gàddu lépp li nga war a am di ko am li war a dikki dana dikk waaye li ci ëpp solo rek mooy ngeen itoo jëmmi doomu aadama yi ndax docteur bala mu lay jox garab ay bëtam ak xar kanamam moo war a njëkk nekk garab gi jiitu mooy taraati bi jiitu loolu moo jiitu ci am paj ba nit ki sax li mu jàpp ne da koy woyaale defe ne ak dee ak dee la moom ci biiram la nekk waaye ragal na ko wax ndax ka muy jànkoonteel ak xaram xar gañ koy wan waaye bu fekkee ni dañoo jiital paj mi rek ndax amul kenn kuy faj doomu aadama ba mu doxi soxlaam nga def ko ay nit ci kaw suuf di dee dem sawara loolu du am mukk ndax la nga saafara woon muy njàqare yi nga teggi woon moom lañ lay dabe yomal am muy sa saafara ci bisub yàlla boobu yi bu màgg boobu yi ca muy bisub lijjanti ba kon paj lu am solo la serigne bi neena kon ngeen gëna am taxaway bi te gën ci deggu deggu nak serigne bi neena day am solo neen dañay faral di wax ne ngëm limi for for for ay ay bari wut ben chart la am moy asidxu moy ak deggu ngëm chartam lo rek la moy deggu kon li ngeen nek ngeen deggu ci rek ci taxawaay ci dimbale ci taxaw doomu aadama yi ndax am na ay baat yoo xam ne foo ko dégg rek baatu doktoor la moo ko moom te yàlla rek moo moom yooyee baatu ndimbal baatu faj wala buñ nee diw faj na wala faju na sa xel dem ci docteur bi mbaa pharmacie bi te yooyu ay baat yu taxaw rek la boo demee ci tubaab it buñ nee baati soin ñu xalaat fajkat bi te soin am ci doomu aadama lu am solo njàpp mii ngay jàpp bis bu ne sax soin la ci sa wàllu yaram kon loolu yépp bu ngeen ci nekkee yéen ngi dëggal seen bopp ci jàppale doomu aadama yi sëriñ bi nee na mu ngi leen sant bu baax di sant ñi leen jàppale ñi nekk seen ginaaw ñëpp yëg naa ko jottali nañ ma ko ak jëf jiñ ci jëfit ak taxawaay bi ngeen àndal nag def seen bopp benn farlu ca fajar wàcc si fi yéen ak naaj wi ak nit ñi ba waxtu wii waxtu wiit jàppoon nañ ne quatre heures waaye ngeen wéyal nit ñi di leen dimbali di leen laabiire ba waxtu yu fekk leen fi kon loolu yàlla rekk moo ko mën a fay sëriñ bi nee na mi ngi leen ci sant bu baax di sant it ñi ngeen ci fekk ñu jàpp ci bis bi docteur Djibi Sarr Male ak docteur Yaay Ablaye Yadd Male ñoom ñooñu ñëpp taxaw nañ ci lool jàpp ci bis bi. def ci ay jumtuwaay ak bokki taalibe yëpp ak xarit yi ak wëllëre yi ak njaboot gi yëpp sëriñ bi naan ci tudd rek ñu mu tuddul sax ñoo ëpp kon bis moom kon yéen yéen a moom jagle gi yéen a moom it tur wi di sàkku nag lu mel nii moom saa bu xéewal gi amatee rek place baa ngi nii dëkk baa ngi nii lii moom matul di gëje seen bi moom daal sàkku na ñu koy faral di def gën a mën a dimbali nit ñi ndax am faj fi ñu toll nii metti na nit dina tawat sax waa waaye aw fitam day dem ndax ñàkk lu mu yóbbu kon fii jamono toll loolu daal sëñ nee moom moom boo amee njàqare loolu rek la te gëm na ni jiital leen ab xaalis yéen nit ñi ngeen jiital na ngeen nekk ay jàmbaar na ngeen nekk ay taxawaay na ngeen nekk ñoo xam ne armé ngeen ndax barki dem bi bu Covid bi nekkee ni tenue militaire camouflée yi gendarmerie ak police yëpp dafa lafu seen tën bu weex bi rek moo fi affronté kon nag ay jàmbaar ngeen borom taxawaay ngeen yàlla leen yàlla jàppale yàlla yàlla dëgëral yàlla dolli seen sutural amin di séentu ci seen àddina nee na yàlla yàlla suñu borom dencal leen lu ko ëpp moo tax ma ne ci àddina bi moom bu leen ko xalaat sax jiite leen liggéey bi rek la ca des nag dana dox ba ci seen i tànk fekk si leen wàññi kër yeeg wata yi moom ci métier mii bu mu doon seen yitte mukk te du tere it da ngeen ko am démb day wax njugo mii mu ni ko àddina boo nekkee ak moom da dëkk ci bëre waaye bëre bi day da nga koy yemale rek ci léewtoo ngir moom bu la songee xajul ci sa yel de te yow boo ko yenoo doo xam foo jëm moom dëgg la de <laughs> da ngay moom rek jërëjëf la <laughs> loolu xam-xam ne léewtoo gi nag li ci solo li ci solo ci léewtoo gi mooy mu lay def ñàgg rek nga koy def ñàgg rek ba nga xëy dem te du yàq te du yàq sa dara àddina loolu mooy li am solo bariwaan na ku ne da koo dëddu àddina rek moo ko génne ci boppam xale bi football ban jox ko carton rouge dañ koo génne de bu ne maa foofu bayit waxut dëgg dëgg la de bariwaan na koo dégg muy woote ne daa dëddu àddina àddinaa ko génne ci boppam rek <laughs> dëgg la de waaye addina moom da ngay nekk moom da ngay nekk ak moom saxal te léewtoo bi rek nag xajul ci tànk te boo ko yenoo it xamoo foo ko jëmee <laughs> dëgg la de sëñ bi kon nag mu ngi leen di sant bu baax wax ji de <laughs> jërë ngeen jëf sëñ bi nee na sant na mbokk yëpp Cheikh Talla bi sëñ bi na la jërë ngeen jëf. wasalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa guddee ngeen ba noppi nag dafa ngeen jëm sori na ñu ko def ñaan rek.